asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh yéen bokki auditeurs yi ak bokki auditrices yi seen bokki am di jàmm yi ak bokki dëkkandoo yi ñu ngi nuyu ñëpp di siyaar yi ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm ak salaam di sàkku ñëpp ñu di ñu ñaanal jàmm yàlla mi am jàmm te da ko jeexal mu ko mu ko sott mu doy fee kenn yàlla boon defal jàmm ñu ngi nuyu ñëpp di siyaar yi ñëpp di ñaan ñëpp jàmm ak salaam te tàmbalee suñu nuyoo nag ak turam siyaar ci Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké xalifatul ama tarixatul muridina nga xam ne mooy ki fi nekkal Xaadimu Rasuul si Ahmadul Xadim te am yéen a ju yéen a ju réeree ci liggéeyam maamam bi liggéey bi nag yéen a jëpp jum ci am yal na ko yàlla dimbale yal na ko yàlla dimbale te yàggal ko yàggal ko fi lool ci suñu kanam te may ko ak wér akuk tal ak ku fekke ba lépp lu mu bëgg def mu def ko ni mu ko bëgg lépp bépp naal bu mu fi naal yàlla na naal ba àgg ba mu naalaal yeneen naal ci daraja yi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam barkatu Xaadim ak mboolem waa kër Xaadimu Rasuul gi di di di di doomam yi di sëtam yi di galbaaram yi di ñu mbokkal moom di ñu mbokkal askanu mu Xaadimu Rasuul si Ahmadul Xaadim bi yëpp boo nee kër Xaadimu Rasuul si Ahmadul Xaadim bi fokk nga ni kër maam Cheikh Ibrahima Fall Baabul Muriidiina boo nekkoon maam Cheikh Ibrahima Fall nag fokk nga ne sëñ Cheikh Jëmbu Fall mi nga xam ne moo fi nekkoon maam Cheikh Ibrahima Fall tey te li mu doon yal na ko yàlla yàggal moom ak mboolem njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall yàlla yàggal yal na ko yàlla yàggal moom njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall nga xam ne moom la àndal fa ci yéene taxaw taxawaay bu maam Cheikh Ibrahima Ibrahima Fall taxawoon muy lan muy dégloo ñu ne defal. mu def waaye lu ñuy tere moom duñ ca nekk bañ di leen ko wax waaye nag kuñ toll ñu ngi ci lañ war a nekk tey déglu leneen lu bees lu luñ koy teg kon ku mat li mu doon moom ak mboolem waa njabootu kër maam Cheikh bi ñu ngi siyaare mboolem waa kër maam Alaaji Malick Si ak mboole waa kër maam Abdoulaye Niass kër maam Ibrahima Niass kër maam Ahmad Dem Sokone kër maam Limaamu Laay ca Yoof ak waa Tereba ak waa kër maam Njaasaan waa kër maam bu Kunta ci Njaasaan ñu ngi nuyu daal mboolem kilifa diine yi nga xam ne seen sëdd yi ñoo fi des tey di doxal la maam ñu doon doxal ñu ngi nuyu ñëpp di siyaari ñëpp di ñaan ñëpp jàmm ak am yàlla nañu yàlla bool defal jàmm. xanaa ko ni ñuy def rek dañuy daal di wëlbatiku ñëw ci kër gi nga xam ne fi la ñuy defee waxtaan bi muy groupe Baol Média fii ci Mbàkke ci tableau bi ci xale wu mag bi bàyyi ko ci Mbàkke jëm ci Touba dëkk bu mag ba ci kër gu mag dëkk bu mag ba ci jumaa ju mag ba ci kër gu mag ba muy ci Ahmadul Xaadim xam ne mooy njiitul kër gi baa njiitul groupe bi di Serigne du ko am yéene lool ak pas-pas yal na ko yàlla jàppale jàppale ko mbooleem ñi ak mbooleem ñi nga xam ne ñoo koy jàppale ngir bëgg lii mu bëgg yàlla sotool ko yàlla mën na ko yal na ko yàlla def kon ñu ngi nuyu ñëpp di siyaar ñëpp di nuyu ko mel ni Baye Cheikh Gaye di jàll duñu fàtte soxna war xapaal Ibrahima Khalil Diop moom laa doon wax te sama xel ni ne ne ne ku ñukku rek Ibrahima Khalil Diop Didier Paco sëñ Moustapha Thiam Cheikh Mohamed Niang ak sëñ Moustapha Nger ak mboolem baa ak Seydina Issa Laye Diop ak Seydi Issa Diop ak sang bu sant ba Jaw ak mboolem waa groupe bale bàyyiwuma kenn képp ku ma tudd ci képp ku ma tudd ci nga xam ne xel xel ngoom aadama mooy demee waaye suma señoo ñëpp lay tudd maa ngi nuyu ñëpp di siyaar yëpp di ñaanal ñëpp jàmm ak salaam xam naa ko ni ñuy def rek dañuy daal tàbbi ci yéen seen émission gànjaru xel xalam kon ci kanam tuuti ñu dugg ci ñu dugg ak yéen ci waxtaan bi waaw mu mel ni kon tey ba tey ni ñu koy paral di waxee rek dellusiwaat nañ fii ci seen émission gànjaru xel xalam tey nag suñ xalam yépp ni ñu ko jëme woon ci mbirum doylu ak ñàkk a doylu mbirum doylu ak ñàkk doylu mu ñaari jëmm yoo xam ne dañoo bokk nekk ci dëkk bi daay bokk na daanaka bokk lépp te ñoom ñaar ñooñu tey kenn ku ci nekk yaa na yaa dëkk bi benn muy kii bu fa kooku jógee ka ca waaye ñoom ñoo ñoom ñaar ñooñu nag yàlla def seen wërsëgu àdduna tax koo am solo xam nga boroom kër boo xam ne daanaka boo añee tey doo reer boo ndekkee doo kii ba bu ñëwee mën ngaa yore dëkk ah, dëkk ba jiite ko day metti lool ci yow ñu am am am pas-pasub nag fas yéenee jóg wuti lu ñu am ba mën koo nekkee ci biir dëkk bi donte mënuñoo yor dëkk bi ñu fexe ba mën fee yore seen bopp moo doon ñuy def seen tukki ñoom ñaar ànd ni ma koy faral di wax rek ne tukki daan demee bu jëkk def sas muraati wala sab suusal wulli sa derub gëléem wala sa derub bëy defar bam kii nga def sa ndox gàddu sa mbuus mbuusum cere sa mbuusam ndox di dox di yendal di fanaanal foo sonne jàdd ci garab yu sedd yi noppalu tooyal ci balaay bi jëfandiku boo dalloo jógaat te ba ngay àgg fa nga jëm wala fa nga yaakaar ne fa ngay war mën a amee dara ñoom nag yàlla def nañu di ko def di ko def di ko def di ko def ba yàlla def ñu àgg ci benn dëkk waxtaan ak kilifa dëkk ba dañ daan wax chef de village bu njëkk boo ma saan dugg dugg ci dugg dëkkub àll te chef de village ngay dem moo lay daloo wala mu boole laa ko la daloo ñu dal sa dëkk ba yàlla def ñu nawet fa parce que lu nawet jeex te day tane lool waaye dëpp teel na bu jógee te dëkk woowee nag fa seen am fu ñu noole si def ay taaba taaba ak seen ak seen pexe di sàkkantaale def seen mbir di dolli ci seen mbir ci la am ba fu mu sakkane mën a doog dëpp nga xam ne bu dëkk am lu ñu toogee mu mel nekk nañ fa diir ñaari at bés nag ñu jógee ci dëkk jëm ci dëkk ndox ba digg ba set ñu sonn xiif man ñu seet génn guy gu sedd ñu jàdd nañ fa noppalu daal di jàdd ñoo agsi daay topp taatu guy ga ni ma koy faral di waxe daal di tooyal seen baraay boobee daal di jëfandiku daay tëdd yi dallu yàlla def kenn ki nelaw waaye kenn ki moom nelawut ba nelaw yu amutoon solo xam naa sax nelawoon na waaye daa am lu ko yee ndax la ko yee mooy lu mel ni jaani bànd nekk taatu guy gi daa am pax mu pax mu rëy mu fi nekk lu mel ni jaani bànd moo génne ci taatu guy am lu muy génnee ci taatu guy gi lu mel ni ay bujj ko génne ko yàbbi ci biti ba muy génn ci yooyee nag di yàbbi ci biti ba mu bari ndeke boobu ndimbalal yàlla la lu doon ñëw ndax génne la ndax ndax aw rab la waaye li mu doon génne or la te ndeke ñoom ñoo taxoon mu doon ko génne waroon ci jamono yu mel ni génne néew fa war a dem ci juróomi kilo or walla fukki kilo bul ba mujjee yàbbi nag ba nga ko yàbbee bay dellu ca tax ma ca la réesu waa ji kooku yeewu ca la réesu kenn ki kooku yeewu ñaq feet yeewu xool gis ko mu romb ko dugg ci biir biir biir jàng bi biir pax mi waa ji nag jaaxle lool nag yeewu na lu yàgg na di xool buntu pax mi di xool li mu yàbb fi mbir mi xamul lu muy nuru am yàggu mel ni mu génn xamee ni lu wax ak moom génn riis ko baax ci toolam bàcc ko genn bi bàcc ba agsi ci ci ci ci ci ci ci bul ji ki jël ci ab bul ñëw sax ko ñëw teg ko ci loxo bi wëlbati ko delloo xamal ko ne ko ngeen jël ko teem lépp nag ci ci ci ay misaal rek la ko def waaye waxut daa duggaat ci lëm mi ci pax mi kooku jóg daal di yee morom ji mu jóg mu ne ko ah lii daa mu xool ne ko waaw or la de mu ne ku ko fendi mu ne ko lii daal benn waay mbaa yàlla lu mel ni jaan la comme jaani bànd mi ngi génn ci paxum guy gii moo xor ngaat dal ba mu ba mu fees mu ñëw xam naa ne dóor ma geen bi mel ni lu ma war wan wan wan lëppin ba noppi de dëppaat dellu ci biir bul bii moo ko matt ba moo ko moo ko manqué sama loxo daal di may ci biir pax kon xam naa daa bëgg ñu jël ko dem ñaa ah, waa ji ne ko yii ñu ne kon suñu affaire baax na waaw moom kay lii kay moom lii buñ doon wut dem ba ñaar ki at duñ ko am waaw lii kay moom suñu dund lépp mën na ci joxe defaru doxe defaru daan ne njaay fab sol suñuy mbuus dem njaay fab sol si bay dem dox ñaari jéego ñett waa ji taxaw ki nga xam ne moom moo yeewutoon moom lañ yee kii ne waa waaw doo wax suñuy dem mu ne ko yi man daal sama xel nekkul ci dem mu ne ko ah sa xel ci lum ne mu ne ko ñu kii ki doon génne lii ba mu ko génnee jeexu ko mu ne ko ah bu ko jeexul nag mu ne ko te buntu baa too xaal ko bu génnaatee ma ray ko buy génn ma di ko càpp jaasi ji mu dee ma gas sax mi nga ne génnewul lépp andi ne ko teel ci loolu bañ a wax wax wax mu ne ko man noonu laay kon moom dogu na moom te kee mënta dem bàyyi ko kooku laay dëpp ñëw waaye lu mi ngi wax ak moom mu të ba mu yàgg rek jaan génnaat ñëw ba àgg si mu tegoon buur wër wër ko wër ko daal dëppaat demaat ci biir pax mi rek waa ji gaaw rek jëkkante moom moomu jaasi ji jaan gaaw de gaaw de paax mu laal catul geen ba daañu ko ci geen bi mu daal di wëlbi rek mu daal di wëlbi su boobee na ko càpp daal ko daal di ko càpp naat doog dugg ci pax mi <coughs> waa ji nekk fay luur gémmiñ gi fuur muy wëndeelu yaram muy tàng muy bàttandiku ba ca dugg yi ah xadir ba xam seetlu seetlu muy def xam ko ndax ca digg gott ba la kenn néew fa mu dem day paxam ay pexem pexe pexe pexe ba gas rek takk ko gas ko fa taxat kuy ko ba mu xool rek mu fab suul ndax loolu dong la ci man mënu ko gàddu yëpp te amul lu mu ko sànge amul lu mu ko sànge amul lenn si yéen daal ci pexe pexe ba gas te ba mu xool rek mu dugal sa biir pax ma rek suul am suuree ba noppi nag toog di ko ñaanal teel jaar jigéen ñi si ak si wax ak moom jaaxlan ne ko fawal li fi nekkoon te dem waaye moo la fekkaat ndax ne su ma gis sama seetlu génn bii rek ni ko sa xale bi def sama xol bi lay jeex tàkk du ma bëgg lu def ko ni ma la def la ni ma ko def te yow xam naa ne wóor na ma ne waxtu boo xoolee sa eh, bàmmeelu xarit bi mu tëdd mu leer la ne man maa ko ko teg maa ko rey bu ma génnee nga gis ma yow itam doo fas yéene doo am suma ne nit benn xol bu rafet lu fas ma yéenee ray sul ma kon yéeneen te jàmm kon sooy bool jën li fi nekk te <coughs> doy lool li fi moom nag lii ko daan ñàkk doy loo teg waaye bu doylu woon lii di ko dal waaye ñàkk doylu baaxul kon kooku ñàkk doylu moo tax li ko dal dal ko waaye kii nar a boole lépp yóbbu te ñoom ñaan ñu seqoon ko doyloo tax mu mu jot lépp loolu la wax ne moom la ko baax ka daan wax Xaadimu Rasuul si ma Xaadim nee na woon li gën a yaatu ndoxam géej moo di doylu kon doylu moo gën a yaatu ndoxam géej waaw ku doylu daraan du doy waaye koo xam ne dafa doylu lu mu amul doy ko lépp a ma doy adduna li ci dàq ki ci ëpp bànneex mooy ki nga xam ne dafa doy lu mu amul doy ko kon ni ñu koy faral di waxee ci foofu ñu tollu gànjaru xel xalam kon ñu xalam diggante ñoom ñaar ñoo ñooñi seen yoon wi ak fi mujje ak li ko sabab lu mat a seeta ngoog jërë ngeen jëf ki leen nekkaloon ci addukaay bi di wax ngeen di dégg mooy seen xarit seen soppee seen am di jàmm ba si lu sekk ndonga daar bi nam kon ndimbal ak yërmande saahir ak baatin fan bu gudd ba ànd ak wér gu yaram liggéey ba ànd ak jaamu yàlla ko ànd ko nangu waxfir lana waxafina bi afiya takkun fi daarayni xeyri afiya assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu kon ba beneen yoon